mbokk yeeg xarit yi lol mbégte lool ak yéen ci émission bi nga xamné ñong ko on en parle avec tey jii nag euh, suñu gan modi euh Talandaw Bok si parti Pastef ndax Pastef la wax wala ex Pastef. non <laughs> ba tay la euh, euh, consultant spécialiste si développement euh, territorial nek tamit spécialiste si changement climatique tay nak li ñuy waxtaanee lu ci ëpp modi ci politique ñuy ma rendre hommage kenn si wa Pastef mu Ibrahima jahabi Ibrahima jahabi bokon ci ñi nga suñu Ousmane Sonko na ci ndaxte en 2017 2016 la commencé di ko liggéeyal ñu séq nag c'est-à-dire que fii moom journaliste bu fi xam Ousmane rek mhm. euh, wala parti Pastef Ibrahima Diakha bi bokk na ci ndaxte daf ñu doon bombardé ak ay euh, communiqué wala invitation mhm. conférence de presse ak yooyu mu dëddu aduna nag mois de janvier 2020 dit tey def na quatre ans il fallait ma rendre ko hommage parce que xam naa ni tamit fee mu nekk mhm. par rapport ak victoire bi ngeen am euh, war na kontaan su fekkente ni rek contentement la euh, mon cher Momat yow it ngi lay nuyu dina ne nak enfin parce que depuis un an ma ngi le top pour invitation euh, mais chaque fois da ngay am lo xam ne di lay tere ñëw mhm. tey jii la ko yalla dogalon ma mhm. ngi lay nuyu ma bëgg rek nga nuyante ak ñi nga xamante ne moo di askan wi lay seetaan nga présenté wu. merci beaucoup salaamaaleykum euh, Adé maa ngi lay fay bu baax di rafetlu invitation bi nga xam ne def nañu ko euh, mu doon lu ñu rafetlu lu nga xam ne euh, depuis un an comme ni nga ko waxee ñu ngi koy toog mu doon nga doon journaliste bu ñu apprécier ci sa qualité professionnelle aussi éthique di remercier say say auditeurs say téléspectateurs ñi nga xam ne ñu ngi lay suivre. Eh, di la jaajeufal et eh, puis eh, di aussi ñaanal ki ñi genn aduna ñep ci nga xamne bokkon nañ ci parti bi ñu ngi doon combat ak ñun te yalla def yalla mom len ñu ngi len di jaale di ñaan yalla xarele aljana di ñaan aussi émission bi nga xam ne ñu ngi koy def ak yow mu doon émission moo xam ne euh, dinañ ci wax kàddu nga xam ne dina jëriñ askan wi dina jëriñ nit ñi dina am ay aussi ay éclairage yoo xam ne dañ ko mën a indi ci ay tontu yu. Mamat nga bokk ci MONCAP. Mhm. mu di mouvement de cadre patriotes. Mhm. tey jii. ex Pastef la ñuy continuer di wax wala Pastef la ñuy wax. ex Pastef ex Pastef jeex na parce que en réalité euh, delo nañ ñu suñu suñu suñu parti. donc waratuñ wax ex Pastef peut-être ex Pastef dañ ko doon wax rek peut-être di exagérer mënon nañ wax peut-être le parti dissous. Euh, moo gën a jekk mais comme ñun dañoo bëri yoon ay ay ay ay mën naa ko wax ay adversaire euh, donc ñooñu moo taxoon ñuy wax ay ex Pastef mais je pense qu'aujourd'hui dépassé nañ cap boobu. Euh, kuy wax nga wax Pastef parce que Pastef légui euh, nañ ko ay euh, reconnaître reconnaissance bi continue donc désormais il faut dire Pastef. yena ko def wala njitu rew non bi def njitu rew bi donc avant muy dem ba donc euh, dépassé nañ ko suñu kan suñu gënaaw la nekk léegi. Mhm. Momath ñu gis Pastef nu muy doxalee gis nañ fi ñi nga xam dañuy né ay démocrate lañu ñi ay socialiste ñi ay sociodémocrate mhm. ñi ay communiste yéen lan moy seen idéologie d'abord. euh xam nga euh, je pense que ñun il faut ñu xolaat revisiter nit ñi di bàyyi xel suñu parti. naka la da ngeen gëmul idéologie non ñun euh, gëmuñu ay ñun luñu ñu gëm le pragmatisme lañu ñu gëm maanaam nooy def ba nga xam ne apporter des solutions appropriées à notre contexte sénégalais, à notre contexte africain. Euh, je pense que ce pragmatisme-là m'a guidé. Euh, nous ne sommes pas dans une logique bon, socialisme, euh, libéraux, démocrate. Parce qu'en réalité, adono a de Reyamonoji, euh, ken monologue socialiste là à 100%, libéral là à 100% le monde actuellement si vous allez dans les pays il y a des ay libéraux mais da ngay c'est une politique sociale mon solo politique bi nga xam la ñuy du wooyee seen bopp socialiste donc oui dans ce contexte il faudrait que euh, ñu xam Sénégal dafa soxla des solutions des solutions rapides des solutions pragmatiques et c'est ça qui vaille en réalité les loo wax socialiste là c'est des doctrines yoo je pense que monde bi ni muy évoluer ñu ngi koy commencer dépasser ñu ngi koy commencer xam ce n'est pas la solution la solution c'est de pouvoir avoir une politique économique euh, solide, une politique sociale fiable, capable de répondre aux besoins des préoccupations des populations. Donc, dans le pragmatisme, moi, idéologie ou BSB, bien créé. Euh, non, nous l'avons créé. <laughs> ah, non, non, si, non, non, nous l'avons créé. Nous l'avons créé. Ce n'est pas, pas une création, mais c'est en tout cas c'est tiré euh, des réflexions yi nga xamné des orientations politiques. ci euh, option yi ak orientation politique yi nga xamné ne ci ci bi euh, comme nous ma la nous ne ñun nekkuñ fi nan ay socialistes lañ nekkuñ fi libéraux Nous ñun dañu nekk des solutions des solutions rapides des solutions pragmatiques sur le plan économique sur le plan social sur le plan environnemental loolu moy suñu idéologie te lol, la ñu nit ñi topé en réalité voilà euh, di naan libéraux là, te voilà te en réalité lo apporter réponse wala naan libéral là, te da ngay mener politique bu nga xamné dafay poser un problème de souveraineté économique politique lolu je pense que nous dañu dañu le écarté wu ci sens bobu dañu wane parce que dans les deux sens le socialisme il y a des choses qui sont bien nous avons besoin de réew mu nga xamné apporter des politiques sociales pour dimbali nit ñi euh, bi euh, nous sommes dans un monde globalisé le libéralisme on est obligé de euh, en tout cas prendre en compte yoy nga xamné mo nek ci pour que fep fu nga xamné lu baax mu nga politique nga ko jël ko nun nous en réalité tout en gardant euh, une politique euh, en tout cas de souveraineté mais aussi la préférence nationale c'est ça qui compte en réalité euh, pragmatisme bobu nga wax mhm. mo aboutir si élection Bassirou Diomaye ah oui c'est ça en réalité parce que c'est le discours parce que nous avons un projet je pense que lolu luñu wara baye xel projet bon xamné euh, dañ ko a nit dañ ko a xam ko un leader un leader charismatique euh, qui a un parcours qui a un discours qui fait que aujourd'hui euh, au-delà de l'adhésion de la jeunesse sénégalaise on a vu ces derniers temps l'adhésion de en tout cas des personnes du troisième âge donc finalement c'est tout le Sénégal qui a compris le projet bi nga xam ne ñun moom lañ doon soumettre des si moo apporté ces résultats que nous que nous avons. victoire bobu nekul lo xam lu len surprendre lu len bête est-ce que vous vous y attendiez surtout nak mu nek premier tour demu len deuxième tour. non man. Euh, demu len second man man man man victoire bi bêtement en réalité. Euh, c'est une victoire que que j'attendais parce que gis nañ dug nañ bir Sénégal dug nañ ci àll bi gis nañ la fa nek dem nañ campagne. Euh, euh, dem nañ ci par exemple da nga daan dem campagne. ci monde rural dem nañu campagne. waaw bokkul mais ñun dañu dem campagne am lu ñu gis euh, dafa am lu nga xam ne moo am ci ci ci ci ci ñun mooy dafa am une une jeunesse engagée. le projet le PASTEF ce n'est pas un simple parti politique mais c'est un engagement c'est des convictions et ce qui loolu moo tax ba da ngay gis ay nit kenn ku nekk da ngay yaakaar ne mbir campagne ñun campagne ak campagne da ngay gis différence ñun euh, on a démocratisé si je bu a utiliser terme on a démocratisé euh, la campagne électorale on a popularisé la campagne Tédi, euh, militaire de base campagne à travers on a utilisé aussi la magie de la technologie de l'information tout cela aussi doit permettre d'atteindre atteindre les plus en tout cas les coins les plus reculés du Sénégal mais surtout le fait que ñun suñu discours dafa porter ci projet bon nga xam ne Sénégal yi moom lañ doon xaar am leader mais aussi am organisation dañu am organisation bon xam ne tey jii mënuloo dem ci commune bu Sénégal bo xam do fa fek ben coordonnateur communal Pastef loolu nak lo am solo la dama lay netali ne ñun dañu doon dem ci guddi ci àllu Saalum parce que Saalum ñu xam nañ lu fa nek Saalum da ngay dem ñu ne la nguur ken du ko contre lañ lay wax nguur duñ ko contre euh, loolu lañ daan wax mais dañu dem ba nga xam euh, le discours dafa dugg dans le monde rural ngay gis xalé bu ndaw dem naa di campagne xalé bu ndaw jël xaalis xalé bu xam ne maa ngi campagne commune bi ñuy wax mel bu dans le département de Kaffrine donc à Kaffrine on était à Kaffrine on était dans les communes dans le monde rural avec euh, la coordination départementale du nuyu notre coordonnatrice départementale Sina donc ñu doon dem ci àll dem ci village à deux heures du matin nit ñi di la xaar xam nga loolu mosul mosoo ko gis monde bu fou dem naa village bu nga xam ne ma fa demee à deux heures du matin ñu ñuy xaar c'est là où j'ai ressenti que l'affaire est pliée. Parce que euh, le monde rural est déterminant pour gagner l'élection présidentielle. Surtout Kafrine. Kafrine. Historique historique, historique, c'est vraiment. Opposition, Moussoufa gagné. Oui, historique, Kafrine, pour la première fois, opposition gagne euh, euh, le pouvoir. Et surtout, avec, la manière. avec la manière, on a gagné le département, on a gagné même le centre de vote de notre adversaire qui qui qui qui a en tout cas définitivement na lu nga peut-être man du ma ko saluer parce que j'ai failli perdre le pare-brise de mon euh, mon véhicule parce dañ ci indi ay xeer jël ay xeer loolu politique dafa dafa dafa doon lu nga noble ne dafa noble ñun suñuy politique duñ ko duñ ko boole duñ ko en tout cas duñ considérer politique comme une activité à part mais euh, politique c'est la noblesse mais comporté wu comme des des gladiateurs di xeex je pense que loolu dafa war a jeex Sénégal tu pense que Kafrine loolu bokk na ci lu ñu avez part de responsabilité si loolu ngay wax. comment naka lañ ci amee. non mais je veux dire que xam nga xeex benn nit mënul xeex. ñaari nit ay xeex non mais ñun ñun xeexuñu ñun dañ ñu attaqué. waaw ah. euh, ku ñu attaqué nga ku ñu attaqué ñun dañ ñu attaqué xeexuñu parce que en réalité euh, monde bi nekkoon Kafrine bu fekkoon dañu xeex kon jéyee mënoon na am en réalité parce que Kafrine de. 19 euh, h jusqu'à 4 h du matin 4 h 30 tout kafrine était debout Nous avons euh, le président Ousmane Sonko cortège donc mhm. monde bi c'était sur presque 2 km ou 3 km nit monde donc ça veut dire que nous dañ mais on n'a pas riposté si on avait riposté bon lenen nous wax mais nous ñaan rek ñu euh, politique Euh, ay gentleman ñoo koy def lu noble la

effort il faut reconnaître il y a des efforts qui sont en train d'être faits mais loolu yëpp dafa doon ci euh, nit ki bu la joxee alal ngay liggéey euh, da nga war a alal joju mu feeñ ci commune bi feeñ ci askan wi ñun loolu la bëgg te euh, gis nañ ne mu ngi jéem te jéem bobu. Nak dañ ko ci encouragé voilà mu mu continuer te gis nañu tamit seen njiit je pourrais dire le président de la république Bassirou Diomaye donte nag toogagul ñu gis mu dem avant même euh, passation de pouvoir bi. Mhm. ñu gis poignée de main le mi Macky Sall. ñu gis de main euh, Ousmane Sonko euh, lan le refléter. Euh, question bi ma féliciter ko féliciter le président Bassirou Diomaye Faye pour cette brillante victoire dès le premier tour diko victoire bi mu lu euh, mu doon djiglay ak attente yi ñu fexe ba li ñi défer mu ndortu sénégalais yi di aussi honorer le président euh, Ousmane Sonko parce que mom euh, nu nane lu jiit njaag mom moy li fi am lepp mom la donc dañ koy sante et ko honorer ci lolu di aussi euh, remercier le peuple sénégalais yi nga xamné voter votel remercier particulièrement nak ñun suñu département le département de Kaffrine euh, remercier la commune de Diourbel de remercier ñafa fa yeb avec suñu coordinateur Abdoulaye Ndaw donc de jeune bu nga xamné jeune bu dynamique di remercier ñep ak góor ak jigen ak remercier nak man sama j'ai un village bu nga xamné dañ koy wax Joli Mandax man fofu la fofu la fofu la deuk fofu la sama yaay deuk fofu lañ euh élection législative lañ ko commencé gagner. donc déclic bi fu muy commencé élection gagner gagné centre monde rural Ce n'était pas évident et depuis lors nous ngi commencé di gagner di une commune bi gagner le Diokoul donc euh, pour revenir ci cette question euh, par rapport au point de main bi euh, moi je pense que lolu lu directement firnde rek moy mm, dynamique bi nga xamné On Macky Sall wane woon na décrisper fay fexé ba am ci réew dialogue euh, donul ne moo doon objectif am mais dafa doon lu nga xam ne nit ki boo demee ba nga xam ne eh, nguur gi jeex na ñàkk nga eh, il faut nga wane des gages yu nga xam ne ëllëg yow nga mën a dem peut-être retraite tranquille man foofu la lecture boobu laa ci am ah. c'est-à-dire que aujourd'hui euh, président Macky Sall jeexal na euh, dafay dem pouvoir bi keneen moo ko yor tey mais Bassirou aussi dans son discours fësal na loolu tamit quoi xam nga Bassirou réconciliation ak nit ñi teer këral yi ak yooyu sénégalais yëpp juboo ànd liggéeyandoo waaye loolu moo war parce que Bassirou légui président de la république là. moom mo yor lenge yi mo yor pouvoir bi Sénégal mom lañu ñu ku Sénégal yaakaar fal la jàmm ngay mën a duñ la wo ci jàmm ngay woo donc il faut angle bobu ñu mën ko xamné ne euh, le président Bassirou Diomaye Faye mënul def lu nangul loolu parce que tay mo yor li Sénégal yëpp yaakar ci sécurité ci économie donc bo yoré lu mel nonu da ngay fexé ba jàmm am euh, lecture bobu lañ ci am te lecture bobu aussi je pense que Sénégalais yëpp dinañ ko saluer euh, jamm bu amé ñëpp ñoo ci ñoo ci gis sen bop économie bi dina dox santé bi dina dox lépp dina dox je pense que dal euh man duma def lu dul lu ko parce que bu leneen amone rek jiixi jaaxa dana am tiitaange dana donc comme nous nañ avant passation de service pour ñew am rencontre rencontre bobu da que nous confirmer cette dynamique de paix cette dynamique de dialogue cette dynamique de en tout cas. mais est-ce que nekkul aussi continuité deal biñ ñu doon wax en amont. non en en euh, surtout ci walu amnistie bi. en réalité euh, deal mënul am Pastef n'a jamais dealer et ne dealera jamais parce que le président Ousmane Sonko da koy faral di Fatali di ko wax du dialogue ñu jël fétal def ci boppam teg ko ci boppam. munul nekk dialogue dafa am condition maanaam dialogue parce que en réalité euh, euh, réew moo gis dialogue moo koy doxal. l' assemblée nationale y' a des institutions sax dañ ko def. pour dialoguer l' assemblée loo gis ci àdduna loo gis guerre mondiale ak àdduna loo mm-hmm. gis ci ci ci ci mbiri dialogue lay mujj lay mujjee yonent bi salallaahu alayhi wa sallam Muhammad mi nga xam ne mooy suñu référence sax moom déjà bu muy bu mu bu mu amee doole ji ñëw màkka dafa dialoguer ak nit yi maanaam dialogue mm-hmm. mooy doon lu nga xam ne mooy yor société société société bu amul dialogue du dem da ngay xex xex xeex ba ñuy wane ne yow kat li sa ak ak élève koy xex mais bu démé ba dialogue nga mais dialogue bi nak dafa am lu koy lal donul dialogue pour lo am mais da dialogue pour réew mi mucc da dialogue pour intérêt réew je pense que Pastef posture boobu la moo sa def manam dialoguer discuter pour l'intérêt du pays on a jamais mosuñu refusé dialogue en réalité booy revisiter dialogue yi am yëpp mosuñu ko mais dañ doon poser ay conditions naka la dialogué donul pour dialogue poste bu maam wala donul pour dialogue pour ma dugg ci gouvernement wala man ñu bal ma li mais dialogue pour réew mi et lolu mo doon mo indi li tay waxtaan ba nga xamné ne réew mi dafay am jamm réew mi dinañ dem transition ba nga xamné day apaiser li yeb depuis le début ñu ngi koy wax bu ñu ci président Macky Sall fekk ci won kon li yeb du am en réalité donc yeb euh, mujj na doon lu nga xamné euh, en réalité ñun ño am ndam ci mom parce que ñun liñ doon woté moy jamm ci réew mi ak ak yelleef justice parce que justice bu amé ci réew rek lepp day dal parce que justice mooy poumon euh, de de d'un pays bu bu baxul rek manam dara du dox dafay indi jafé jafé ci réew je pense que lolu mom lañuy fatali wat xamné ñun nous sommes dans une dynamique de de de de en tout cas de de dialogue de paix mais tous tous lepp ci intérêt réew mi naka lañuy def ba nga xamné dañ aar intérêt Sénégal naka lañuy fexé ba Sénégal am jamm mucc koom-koom bi mën a dox santé bi mën a dox mbay mi mën a dox loolu moo ñu yitteel te loolu lañ fas yéene incha allah fexe ba teg ci réew mi ak programme bi nga xam ne moom lañ moom la ñu tëral ci suñu projet politique. Euh, ñuy fàttali rek suñu gan tey jii moo di momaat Tall ndaw bokk ci cadre Pastef fii Momar le deux ngeen woote fi nga xamante ni moo di CICAD. Euh, euh, CICAD mhm. ngir. Euh, investiture qui dit président Bassirou Diomaye Faye mhm. euh, ndax ragalu len mbumbaay bi bëri fa ndax euh, nekul lo xamanteni mënon ko organiser rek dans la plus grande sobriété. waaw xam nga bu donon ci le président Bassirou Diomaye kesse kon dañ koy organiser bir conseil constitutionnel nga xam da fay am solennité bi nga xam moko wara

te loolu dafay laaj nga am bërëb bu gën a gën a gën a yaatu. est-ce que ñooñu confirmé nañu. président bon tey mënuma mënuma wax loolu parce que je suis pas nekkuma ci protocole bi mais ce qui est information yi mooy y a des chefs d'État yu nga xam ne invité leen dañu war a beneen bi mooy dafa am ñu nga xam ne aussi ci réew mi ay kilifa lañ dañu war ko teewee euh, xëj na. Euh, loolu moo waral ñu yóbbu ko bërëb bu nga xam ne moo gën a yaatu pour que ñooñ ñëpp mën ko fekkee mais daal li leer ba leer mooy ñu nekkuñ ci xumbaay nekkuñ ci puukare li ñuy xaar dafa rëy parce que nguur ñu la ko joxee da ngay xam ne dañ lay jox lu dis dañ lay jox lu nga xam ne askan yëpp dañ lay yaakaar donc leneen loo fi def lu dul nekk ci liggéey da ngay da indi ay ay ay ay ay jafe-jafe da ngay indi problème yoo xam xëj na askan wi li ñu doon xaar duñ ko gis ci yow mais li solo mën nañ garantir na Euh, nguur gi ñuy taxawal ak ni ñuy taxawé dana doon taxawaay bu nga xam dana soppé parce que ñun dañ fi ñëw pour changer un système mm-hmm. changer un système nak moy li am dootul am mm-hmm loolu fas na li mooy lan lan moo lan am mooy puukare puukare eh, wane ne maa yor lii di di di di di di dundee xaalisu askan yi. mais est-ce que loolu nekkul si ADN sénégalais aussi hein? loolu en réalité. Euh, parce que avant ngay dugg de <laughs> mën nga wax loolu yëpp mais boo demee ba ci biir. Euh, xam nga c'est autre chose. xam nga bu fekkente ne da ngay yor. Euh, xam nga ay ay loolu la waxoon bu muy dugg. waaw loolu yëpp loolu yëpp loolu yëpp li koy waral mooy bu fekk parce que en réalité man j'ai l'habitude de le dire, euh, on n'a pas un problème d'homme politique, mais on a un problème de société. Euh, et si mes lectures, tu as un problème de société, il faudra mettre des garde-fous, des dispositions qui les permettre de garder le cap tout le temps. Je pense que nous, nous donne sous nos, sur nos, trajectoire directions, sous nos trajectoires, à tout moment, nous garder le cap. Et lolo, nous avons un leader, des leaders qui ont amené, euh, te jël nañ mécanisme de disposition yoo xam ne daf lay permettre ngay sanctionner parce que il faut sanctionner il faut toujours il faut toujours sanctionner il faut aussi remercier ceux qui ceux qui réussissent ceux qui travaillent bien et tant qu'on ne mette pas, mette pas en place ce dispositif de sanction, de, de, de, de suivi évaluation, de, de respect du cap, de la guidance, loolu su amul rek dafay indi problème dañuy ñëw reproduire le même système mais je pense que nous euh, notre réussite va dépendre des mécanismes que nous mettrons en place maanaam jumtuwaay yi ñuy mettre en place ba nga xam ne danañ fexe ba nga xam ne euh, fi nga xam ne lañ jublu képp ku nga xam ne da nga koy dévier ñun la ah yaa ngi jub yaa ngi jàdd yoon ñu tegal la ci yoon bu fekkente ne teg nañ la ñaari yoon ci yoon tegoo ci yoon ñu te écarté la je pense que loolu mooy doxinu réew parce que réew du caaxaan république du caaxaan république du mbokk du xarit du len république c'est des valeurs c'est des règles yoo xam ne dañ ko war a respecter et je pense que loolu ñun lañ bëgg a refonder la refondation de la république des institutions pour que le Sénégal se mette au travail. Momad est-ce que aussi euh, Bassirou Diomaye il a été élu dans le cadre d'une coalition mhm. Ragalong, le am si coalition. Il ku été di dans le ci euh, Lolo, je pense que do am en réalité parce que euh, Lolo euh, déjà bon. est-ce que waxtaan au sein des instances aussi bon mënuma ci confirmer parce que je suis pas voilà voilà Cadre, cadre la si mais dafa am ku nek sa responsabilité dafa am ku nek sa ses tiers, parti bi dafa am aussi un cabinet ku nek amna niveau d'information mais situation bu ñu nekk c'est une situation qui xamné amener instant bi on n'est plus dans le cadre d'un parti pour on est dans le cadre de la République te nommé guñu leen euh, mënoo ci wax len donc je pense que li li mën li mën nek déjà li mën am ak li war am moy euh, le président Ousmane Sonko déjà ci discours am bu mujj bu mu def mbour li mu wax moy mbir mi du fi pàcco mbir mi mbirum liggéey la te dañu fas yéene Sénégal te boy liggéeyal Sénégal n'ak da ngay xol ñu am xam-xam ñu xarañ ñu ñu ci Sénégal ak fu ñu mëntu nek nga liggéey ak doon lu fi donne ne m'a yoroon lii maa mais dañuy xool kenn ku ne li ak li nga ak faut que eh, te tu nek mën nañ la il faut ñu Sénégal aussi euh, donatul ay gouvernement yo xamné da fay euh, gouvernement uniquement de coloration politique je pense que lolu aussi euh, c'est une orientation mo certainement ko maintenant da nga ay borom gis nañ ne xarañ nañ mën nañ liggéeyal Sénégal ñu jël leen donul ne da ngaa doon un politicien rek yow rek yaa war a doon ministre. mais nag bu ngeen waxee que affaire yi appel nu mu tuddati appel à candidature lay doon pour certains postes aussi est-ce que du def euh, désordre je veux dire que njiitu réew dañ la tànn pour nga jiite réew mi. Mhm. da nga war a jël say responsabilité koy tànn nga jël ko koo war a tànn nga jël ko mais bul xaar si ay. ay appel à candidature pour jël nit xam nga appel à candidature li ko waral mooy c'est-à-dire que c'est un boo xam ne da ngeen ko waroon def en amont non mënoo ko def en amont parce que parce que parce que joro yoto joro yorogoo réew mi loolu boo koy def Euh, doonul ne da ngay xaar aussi ba mu ne këtt su ne jonn ci ngay. choisir mais mais euh, mais mais loolu loolu yëpp loolu yëpp c'est un tey jii euh, mënuloo ñëw tey rek nga par exemple seen projet da ngeen ko bind. en amont donc pourquoi pas. non <laughs> xam parce que parce que ah balaa balaa nga naan da ngay def appel à candidature dafay fekk nga jot ci nguur gi jotagoo ci nguur gi da jot ci nguur gi ba pare. nga soog a wax nag. appel appel à candidature bi la comprendre pourquoi ce choix. alors li li waral loolu li waral loolu mooy dafa am dafa am ay ay institutions yoo xam dafa am ay direction yoo xam ne dafay laaj des compétences. laajul dafa ko xam je veux dire que wa, mais mais am nañu mais am na ñoo xam ne duñ politique c'est-à-dire que poste de responsabilité yoo xam ne yu élevé war ngeen xam ñan ñoo compétent ñoo que non xam nga xam nga xam nga li waral ñuy xam nga des fois présomption de compétence d'ayam manam nga yaakaar ne nit ki compétent la. mais liñu bëgg rek. même appel la candidature aussi bu ngeen ko défé présomption de compétence. ngeen ciy mais mais dafa am critère yoy tek dafa am critère yoy tek tay ji doy def appel candidature dafa am ay critère yoy tek yu nga xamné ci la basé ñu tànn tànn par exemple ñaar ñet ñet ñu proposer ne ñi kat ku nekk mérité ni après le président de la république moy tànn ci ñet yooyu kan la koy jox lool boko ko ñukoy def moy dañu bëgg nekk ci lu ñuy wax standard internationaux manam amna institution yo xamné ne doonul da nga koy jox homme politique muy campagne muy nek ci euh, par parlo mais dañu bëgg fep fu compétence nek ci réew mi tay ji man nga def am nga ben agence bu nek ci réew mi bu am solo nga bëgg sénégalais yi amna ñu nga xamné ñu ngi bitim réew ñu ngi feneen yor nañ xam ko wala ñu nga nga ñu ngi biir Sénégal politique wuñ mais nga def appel à candidature mën nañu postuler nga jox leen ko ñoñu bo leen fa tegee ëlëk lu ñuy xaar moy ñoñu liggéey lañuy xaar ci ñom du am par parlo nous sommes ci campagne politique nous nek ci parti politique loolu nak liko waral moy que bëgg Sénégal ñu liggéey liggéey bobu dañu xol ne dafa soxé trop trop trop ci politiciens donc luñu bëgg dal na nit ñi xamné appel à candidature c'est de permettre au Sénégal euh, d'être sur la rampe du, travail mais aussi de l'excellence et de la performance parce que bo défé appel à la candidature tu vas choisir les plus performants en réalité le l'olu c'est de pouvoir avoir des, des, des, résultats performants, la performance, l'efficacité par rapport à la mise en œuvre des politiques publiques. Voilà. Euh, euh, si nombre de ministres ndax si. Euh, <laughs> j'espère que nous allons fi def. non en réalité en réalité il faut que nous peut-être bu nous voilà ay nombre ay kii ah, mais je pense que euh, vous avez toujours dénoncé pléthore pléthore ministre yi ci gouvernement bi quand même waaw mais ça dit que engagement bu munoo ñëw tey ñuy wax que vous ne pouvez pas s'attarder sur le nombre de ministres ou quoi non en réalité en réalité il faut il faut c'est juste damay c'est juste damay préciser rek loolu moo tax ma ne bu ñu attarder ci chiffre li am solo hmm. mooy Mm, ñu am gouvernement yo euh, expertise bi ñu leen di am aussi am gouvernement qui xamné ne refléter la réalité du et les urgences au niveau du Sénégal loolu la ñuy xaar non mais je pense que je pense que duñu mënuma wax ci chiffre parce que duñu parce que en réalité nombre de ministres des fois dañ ko man gouvernement yi nga xamné mo fi ron passé da ngay gis nombre de ministres yoo dañuy éclater plusieurs ministères yo xamné ne waroon na mën doon je pense que lolu aussi euh, dana am liggéey boo nga peut-être ñi nga xamné ñoy constituer lolu dinañ ci def mais ce qui est sûr on n'aura pas ce que euh, liñ daan am bu njëkk voilà loolu mom mom amna ci ci jot moins de 30 ministres non je peux pas dire je peux ah, pas donner de chiffres non non dire que lañ doon am à partir de voilà mais mais je veux pas je je veux être je veux être délicat parce que y a des niveaux de responsabilité yo xam boko boko yorul engagé ou de certains discours mais je voudrais dire juste que euh, nous sommes dans une démarche de rupture et cette démarche de rupture exige que que les gens ne ne ne ne ne qu'on reflète pas les images que nous avions l'habitude de voir Lolo aussi ñu bàyyi ci donc euh, li ñuy mën ce qui est sûr en termes de qualité en termes d'attente sur nombre de ministres pense qu'on sera à la hauteur de ce de, ces attentes voilà Les ñu dem ci projet bi may fàttali leen rek sama invité tey Modi moo di Momar Talla cadre pastefi. yi si mhm. si le projet yi gis nañ suppression des fonds politiques mhm mais est-ce que le décision bu parle? parce que xam nga jiitu par exemple dina am yo xam comme on dit des impondérables mhm. wala ay variables externes yo xam ñu mu war def fi légui ben mu wara japp ci si benn affaire mhm. bu fekkenté ni fonds yi nekk fa nan lay def non fonds yi dina fa nekk mais li ñuy wax moy fonds yi dañ koy wañi dina wàññeeku dotul don comme nu mu mel pression laa gis non en réalité fonds yi dañ koy wàññi mom loolu mom c'est c'est c'est ça qui qui qui il y aura un organe de contrôle benen bi moy voilà benen bi moy dañuy contrôler fonds yi manam donul da kay jël lu ko neex def ci duñ ko contrôler euh la redevabilité dafa don lo nga xamné même le président de la république dafay tegu ci responsabilité la gestion de fonds publics da rendre compte de rendre compte de dina a te dinañ ko que jëmmal ci def fonds politique dootul ab sac yor rek loola neex def ku de nga voilà opacité je pense que loolu euh, dafa sénégalais ñu je pense que loolu wax na bind nañ ko suñu programme <laughs> fonds yi dañ koy dañ koy dañ auditer dañ koy contrôler <laughs> institution aussi wax ngeen ko muy HCCT muy euh, li nga xamne moy H HDCS. Oh, ak li nga xamanteni modi moo di CES. waaw euh, ndax lutax ngeen ko fi jëlee da ngeen gisul njëriñam wala lan la. wa xam nga xam nga institution yoy euh, ñun lu ñu gëm moy institution yi fay lek xaliss bu bare bu bare bare ci Sénégal. te gisul njëriñam te gisuñu njëriñam parce que gisoo lenn lu ñu liggéey lan lan nga gis au conseil des collectivités territoriales conseil économique social et environnemental commission nationale dialogue des territoires Nous euh, lan lañu lan produire ci Sénégal conflit yi bu au fi am Sénégal tey nous avons un dialogue parfois ñuy avons ay rapport mais mais rapports yi rapports yi yow si rapports yi man finalement da nga an, nous lan la ñu jëriñ bu milliards impôt surtout sunu xaalis diko jox ay institution daf ñu waral jëlinde ñu leen di gis ñu liggéey mais ay bind téere rek bind rapport Sénégal kan moo kan mooy kan mooy lire rapport Sénégal da ngay xool ne majorité sénégalaise bi ñu ci bëri am na ci ñoom mënuñu lire rapport mhm. donc ñooñu nag booy wax ak ñoom wa boo leen di jëriñ da ngay dem ci ñoom di wax ak ñoom donc loolu moo tax ne euh, te boo xoolee ñooñu ay ay clientélisme politique lañ fay casé voilà moo tax yooyu foog ñu xoolaat ko euh, maanaam tey jii

te aussi gis nañ né institution yoyu bari nañ té jëriñu dara des centaines des personnes yo xam ñu ngi ñu ngi ñu ngi teud di nelaw euh, lool yépp amna fu mu jëm parce que mëna tabax hôpital mëna na jënd ambulance parce que bo démé ci yenn dëkk amul ambulance tay ji bo démé commune bu jëkul mbol bi ben euh, joli mandax ñu ngi fay tabax ben poste de santé maire bi mu ngi fay tabax ben poste de santé boo xamné depuis quatre ans mënul pare locaux yi ni ko def baxul marché bi déjà dafa melni marché bi marché bo xamné maire bi moy moy moy moy maire bi moy moy moy moy défer donc mënul pare yooyu yëpp amoo ambulance yooyu yëpp dafa doon problème yoo xam ne xaalis am na mais xaalis bi fi ñu koy dugal moo moom moom moo jaarul yoon loolu yëpp nag dafa doon lu nga xam ne suñu programme la bonne gouvernance mooy pilier bi nga xam ne daf ci am solo fexe ba nga xam ne ñu sellal yorin bi yorinu xaalis bi di rendre fexe ba nga xam ne fépp fu nga ne bërëbu yàqukaay xaalis la ñu supprimer ko xaalis bi fexe ba jëm ci askan wi loolu mooy suñu yitte mais est aussi mënuñu yaakaar ni ngeen wut après fi ngeen wër ndomb comme on dit pour créer benen institution bo xamné bu koy nuru genre Sénat par exemple tu sais si tu te souviens Macky Sall defoon na fi. waaw euh, xam nga éliminer li ba pare créer wat leneen. Euh, waaw xam nga xam nga pas s'attendre ça. xam nga loolu yëpp nous sommes dans. pour caser yenn ni quoi suñu programme xam nga loolu yëpp programme nous sommes dans une politique de rationaliser rationaliser manam fexé ba nga xamné Euh, li nga xam ne kenn man na ko lu nga fexe ba jox ko kenn maanaam lu kenn man doo ko jox fukki nit loolu dafay tax nga mën a koomal mën a yaxanal alalu réew mi ñun lu ñuy def dañuy fexe xool lii ban résultat lay jur ak naka lañ mën a euh, yaxanale euh, xaalisu réew mi parce que institution dafa am yoo xam euh, multiplier ko amul njëriñ euh, li am solo rek moy nga rationaliser ko rationaliser bobu bokk na ci principe yi nga xamné mo guider euh, suñu politique économique je pense que ci loolu lañuy jëm quoi. voilà né ngeen tamit njitu réew mi day démissionné ci jiite conseil supérieur de la magistrature au même moment dembu gis nañu que njitu réew bi fi wara joggé nomé na nit ci bop conseil su nu mu cour suprême cour suprême est-ce que nous avons am est-ce que conseil supérieur de la magistrature parce que comme on dit que mom moy est de vous des institutions mom moy chef suprême des armées est-ce que aussi mu conseil euh, supérieur de la magistrature si magistrat yi kese amul kenn ko boulen artu buñu amé jafé jafé ndax du jour après aussi ay problème wa xam nga xam nga l'indépendance de la justice dafa donne euh, préoccupation bo xamné depuis plusieurs années ñu ngi koy wax l'indépendance de la justice te l'indépendance de la justice du baat kessé jëf la jëf joju nak li koy matérialiser euh li ñuy wax euh les pouvoirs euh, les quatre, en tout cas les, les, trois pouvoirs, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir euh, judiciaire. Mhm. ñett yoy kenn ku ne da nga am sa cër si réew mi te ku nekk dañ la ko wara jox ba mu mat sëkk euh, je pense que dañu am wara am ben ben intelligence bu nga xam ne ku nekk euh, li nga wara doxal nga doxal ko sans pour autant beneen pouvoir ñëw di le contrôler wala di jéem xol nu muy téye am fu mu la pour mën la orienter. je pense que loolu moo indi problème Sénégal yëpp Sénégal jafe-jafe yi ñu fi am yëpp mooy euh, dañu am président boo xam ne dafa jéggi dooleem dafa jéggi dayoo mooy buum mooy buum yi lu ko neex mu def loolu. seen match bi justice yi voilà voilà loo wax ñu leen président so maanaam tey jii euh, te loolu nag suñu problème yëpp problème société la dañ lay fal fal la ba pare.

nous ñun des victimes de cette justice d'autres sénégalais aussi donnent des victimes de cette justice il est temps de ñu bâtir que nga justice bi hommes des hommes de valeur yu nga xam ne taxaw l'indépendance de la justice l'indépendance elle est d'abord individuelle d'abord je pense qu'il faut que aussi nous bàyyi indépendant mais il faudrait que les magistrats les acteurs de la justice prennent leurs responsabilités en sachant que d'abord il faut il faut il faut d'abord cette indépendance individuelle avant d'être que parce que Sénégal aussi amène amna un méca des mécanismes des dispositions mais nit ki bu bëggul indépendant du indépendant léegi nak li ñu war def moy fexé ba nga xamné le président de la république ak jëmmam ak dayom bi mu tollu ñu fexé ba génné ko fofu may justice bi ay nit d'homme de valeur de qualité yo xamné dañ danañ mën taxaw jëmmal justice bi ak fo mëntu tollu ak dayo ba mëntu am ñu attele ci dor ci ci yoon je pense que lolu Sénégal mom lañuy xaar té ñun dinañ ci def djégo yu mat sëkk pour fexé ba nga xamné justice bi dana indépendant fexé ba aussi assemblée nationale aussi mu am pleine responsabilité ci contrôle de l'action du gouvernemental té bo xolé souvent dañuy yor assemblée yo xamné déjà dañuy fausser assemblée ji ni ñuy confection même liste parce que ben nit surtout bu ñu xoolee système bi fi nekkoon moy ben nit le président rek mom lañuy wax ne jox nañ la ki bi nga tan nit défer ce liste xol ñi la neex ñu xamné ay benn ñu à la base amuñ ci ben responsabilité tay ji député yi ñu fal Kaffrine amul ben population mo xamné ne mo moo ñëw ne député ñu ko et je pense que système bu ñu mettre mettre en place moy faire en sorte que euh, nos représentants émanent du niveau local manam gox yeeg gox goxaat yi ñu def un système moo xamné ñoy ñooy fofu ki mo wara don député mu soog don doon ci doon ci liste ñu fal ko mais pas un président wala ben mais fal mom fal mom da fay subjectif tout le temps même bu ngeen défé lolu loolu. waaw mais euh, mais dafa am niveau manam kaddu gi dañ ko wara jox à la base manam limay wax moy donul na. président buñu ñu laajee bu carte kay. lolu kay wa mais mais mais dañuy sék xam nga lan xam nga fan lay. bu ngeen défé lolu tamit en amont ci askan wi fofu mën nañ jeng aussi. Hein? non mais mais mais nga jox cadre xam nga li ñuy wax la gestion participative la gestion à la base fexé ba nga xamné askan bi nga xamné mom moom motax ñu yor nguur gi ñu dem laaj leen seen xalat bu fekké laaj nañ leen seen xalat lu ñu wax ñu nangu ko ak même bu ñu juumee ñu xamné ñom li lañ bëgg en réalité fofu lay waxé limay bañ rek moy ñu am liste yo xamné dañuy tok président de la république moy taxaw listam rek comme niko wa ben bokk yakana def na ne jox nañ la kàddu nga jël bind ay tour Kaffrine ñu wa wa alors que y a des hommes yo xamne ne tey jii boo leen assemblée nationale et des hommes et des femmes yo xam boo leen yóbboo assemblée nationale dinañ amal njëriñ dinañ mën contre contrôler l'action gouvernementale dinañ mën aussi apporter quelque chose cette gox foofu lañuy waxé fexé ba nga xamné député doonul député du parti mais député du peuple sénégalais yi ñoo fal le peuple mo fal tu es da nga nekk pour servir la république et ce euh, recadrage là je pense que il faut ñu def ko pour que bépp institution mu taxaw xam ne dañ ko jox cër te cër bobu daf ko wara matal pour que li nga xam mom la Sénégal di xaar ci mom li nga xam mom la askan wi di xaar ci mom mu maté ko boko deful rek ça veut dire que dañu reproduire la même chose et je pense que ñun disposition yoyu la prendre dans nos réformes yo xam dañ ci discuter parce qu'en réalité euh, waxtaan ak dialogue moy doon lu nga xam suñu gouvernance daf ci am solo waxtaan dialogue ba xam ne dañuy am solution consensuelle pour que Sénégal ñu mën ko euh, gouverner euh, dans dans le calme dans dans l'apaisement <laughs> am na beneen poñ aussi boo xamante ne ngeen da ngeen di négocier un plan de sortie du franc CFA. Mhm. mais est-ce que loolu tamit c'est pas risqué parce que ñi ko essayé woon yëpp ñoo ngi ci tooxi doon de. Euh, je pense que peut-être il faut ñu ñu gën a leeral ci question monnaie bi parce que y a beaucoup de débats sur sur la monnaie mais li ñuy tàmbali pour fàttali ko nit rek maanaam xaalis.

sans effet mais dafa am ay préalable dafa am ay conditions yooyu taxawal ba pare économie bi il faut mu nga def de réformes mu dëgër pilier mais aussi ñu fàttali ne ñun dafa am lu ñuy njëkk a def ba pare maanaam tey jii yaa ngi dégg ñu naan la wax éco te éco boobu waroon nañ ko def en deux mille vingt hmm. et bizarrement en décembre deux mille dix neuf Macron ak Ouattara ñoo ko torpillé en réalité ñoo torpillé ba bindoon naa ci article ci jamono yu mel noonu maanaam euh, lu toll ni CEDEAO dafa war a am monem monnaie boobu ñun moo ñu gënal maanaam loolu la ñuy dox dans le cadre d'abord maanaam y a euh, dans une solution il y a plusieurs étapes la première étape souvent ñuy discuter ci wax dañuy wax monnaie dañ koy fàtte ne ñun nous sommes panafricains foncièrement panafricains te loolu la ñuy liggéey dañuy fexe ba nga xam ne te discours le président Diomaye Faye conférence de presse bu mu njëkk a def face à place bu mu defoon fàttali na noonu maanaam fexe ba nga xam la CEDEAO ñu joxaat ko turam gëddam dootul doon CDA boo xam ne dañ fay travailler pour des pères pour des présidents non mais dafay doon CEDEAO boo xam ne c'est la CEDEAO des peuples mhm. fexe ba li nga xam ne mooy souveraineté ñu taxaw ci parce que fukki état ak juróom juróom benn mënuñu taxaw pour ut seen monnaie mu tëleen pendant ay ñaar fukki at ñu topp ji di daw loolu yëpp dafay wane il y a euh, un manque de volonté. Mm. il y a aussi des actes voilà mais ñett ñi génn tudd nañu la loolu yëpp liggéey la euh, te yaakaar naa Sénégal position diplomatique bu mu am. Euh, dinañ ci dox ay jéego fexe ba nga xam ne ñi nga xam ne CEDEAO lañ bokkoon ñu taxaw waxtaan ak ñoom parce que il faut ñu diagnostiquer les problèmes les problèmes sont là il faut que ñun ñëpp ñu toog ci table bi gis ne lii mooy problème lii mooy problème ñu waxtaanee ko fexe ba nga xam ne eh, ñi nga xam ne génn nañ te dañu génn am des motifs valables yooyu ñu taxaw ci fexe ba nga xam ne CEDEAO dana taxawaat sur le plan économique sur le plan politique ñu am taxawaay bu mat sëkk ba nga xam ne tey jii monnaie bi nga xam ne moom la ñu soxla ñun dafay fekk ñu am ko biir CEDEAO bala ñuy dem ci monnaie bo monnaie bo monnaie Sénégal donc loolu damay bëgg bëgg diko nous sommes foncièrement panafricains et la première solution c'est la solution d'une monnaie au sein de la CDAO et ça il dinañ ci liggéey lu ñu mëna def danañ ko def pour monnaie boobu ñu am parce que c'est la première solution su loolu mënul am nak on va essayer de trouver une autre solution une monnaie locale je pense que mais euh, non mais en réalité li leer il faut nga xam système système CFA nakala parce que le système CFA c'est un système boo c'est un système colonial néocolonial maanaam ses réserves réserve c'est taux d'argent fixe maanaam tey jii ñun suñu fekkee dañuy def exportation dañu am dañu am des problèmes parce que euh, dañu arrimer ci monnaie bu bu bu koowee muy muy muy muy l'euro te loolu nag tay du refléter ñun suñu poids économique ñu ci am jafé jafé les réserves de change ak problème yi ñu ci wax yépp c'est des situations yo xamné ne bu fekkente ne amoo sa monnaie da ngay doo am une maîtrise sur ta politique monétaire sur ta politique économique mu doon jafe-jafe ma tant que réglé wuñ ko rek ñun dañuy continuer di tënku di continuer di di sous-développé euh, te loolu nag pour ñu yegg si comme ni ma la ko waxee dafay laaj des conditions parce que le travail sur l'économie comment faire pour que ñun suñu économie mu solide la les indicateurs macroéconomiques ñu dëgër yooyu euh, des réformes bancaires yooyu yëpp dafa doon loo xam ne ay préalable la doo xëy rek ñëw rek non dàq naa sax mais dafa am préalable na dañ koy réussir ba pare nga xam ne dañuy teg conditions yoo xam ne dafay permettre une transition douce facile et avec succès. <laughs> Momaat euh, am na beneen poñ aussi bi nga xamante ni nee ngeen da di créer six pôles régionaux. Mhm. Euh, six pôles régionaux yi lan ngeen fay développer. Oh, six pôles régionaux industrialisation. Oui. Mais est-ce que aussi li nga des ne di mbay mi jox ko En réalité euh, pôles régionaux yi c'est des pôles yi nga c'est dans le cadre de l'aménagement du territoire parce qu'en réalité, réalité Sénégal dafa am jafé jafé ci aménagement du territoire bien vrai que il y a des documents de de de de politique y a des y a un plan national d'aménagement et développement du territoire bi nga validé dañ ko je pense en 2020 élaboration bi a duré pendant cinq ans Je fais partie des des des acteurs qui ont impliqué woon nañ ci processus bi mais souvent a am problème a am problème pour la mise en œuvre de nos documents de planification Madame Sénégal dañ ko jëw ci fànn boobu mën nañoo bind rafet document bu mucc mais jëfee ko day jafé té lool nak euh, ñun bokk na ci suñu yité fexé ba nga xamné l'aménagement du territoire fexé ba nga pôle yi nga xamné mom lañuy créer ñu jëmal pôle yi doonul lu nga xamné rek dañ koy wax ni mais dañ koy jëmal en terme d'activité économique, en termes d'infrastructures, d'infrastructures sur le plan sanitaire, sur le plan éducatif, mais d'infrastructures de transport, mais aussi surtout des infrastructures économiques. Et pour zone bu euh, euh, des aspects écogéographiques sur le plan environnemental sur le plan des ressources moy ñun li politique industrialisation fexé ba li ñuy bayee Saalum gerte gi dotul doon gerte go xamné da ngay bay rek mais mu commencé ci ay petite industrie moyenne industrie locale transformation pour que nit ki de la valeur ajoutée té bo gissé réew yu développé ba au niveau local mu am des petites unités de transformation mmh. boo dans le foot mais on fay qui meew mi day yàqu loolu le mhm. da ngay fexé ba nga xamné ne des unités de conservation des unités de transformation ba nga xamné ne bi dotul don meew boo xam ne koy ki rek bayiko mu yakko mais di ko meuna non seulement conserver mais di ko meuna transformer ñun tay li ñuy importer di laisser des milliards té euh, notre élevage. da ngeen fay installer ay unités de transformation. Euh, en réalité c'est ça l'objectif fexé ba nga xamné euh lait bi danañ ko meuna conserver danañ ko meuna transformer faut créer emploi mais aussi fait créer beaucoup de revenus et de la transformation sur le plan économique de l'économie locale loolu le nous bëgg ba nga xam fu nga accompagner euh, des acteurs au niveau national il y a des entreprises parce que l'État va créer les conditions pour que nous euh, fait nga amener euh, des ressources amener des richesses nous accompagner des Sénégalais par privilégier les partenaires en tout cas les Sénégalais la préférence nationale pour mmh. que nous puissions créer des entreprises créer des industries nous pouvons transformer euh, les ressources au niveau local Nous nous ñu koy mën a defee ci mbay mi noonu la koy defee ci gi def ko ci gi également ci ci naturelles ressources, ressources naturelles, parce que y a des ressources il y a l'or il y a beaucoup de ressources au Sénégal mais malheureusement boy xool entreprise sénégalaises y amuñu ci euh, mise amuñu ci laara ay miettes lañ donc loolu c'est des aspects yo je pense que sur le plan économique on fera des réformes dans ce sens on fera des de telle sorte que des mécanismes d'accompagnement des entreprises sénégalaises vont se développer pour pouvoir euh, voilà impacter sur notre économie. je pense que la transition est trouvée mais fatel invité mouvement national des cadres patriote donc euh, nga tamit spécialiste ci développement des territoires mm-hmm. ak gouvernance climatique mm-hmm. bon ñoo ngi si nawet mm-hmm. ay rek gis nañ ni que mbirum Dakar presque mi période nawet lan lenn loo xamante ni lu koy saafara la. waaw euh, li ma si mën wax mooy déjà euh, bu ñu jëlee exemple Dakar euh, balaa ma wax saafara damay peut-être def benn diagnostic bu ndaw <laughs> maanaam li waral mbënd mi si si Dakar li waral mbënd mi peut-être ñeenti point lay tënk ñeenti tomb tomb bu ci njëkk mooy les facteurs physiques conditions physiques Dakar tey jii boo xoolee Dakar presque le mais dafa am zone lu ñuy wax zone des Niayes zone de ñaay nak buñ la ko waxee moy baafoo moy xur ci wolof dafa doon xur. zone de ñaay bi fan la nek ci Dakar par exemple zone de ñaay moy li jaar jógee en parcelle traversé yembal Malika C'est vraiment c'est une bande qui qui bu nga xamné terre bo xam ne moo nekk une bande d'une largeur à peu près de quinze kilomètres bu nga xamné ne ngi euh, ci euh, avant guedji gi ba dépasser toll ci quinze kilomètres donc dem ba Saint-Louis lolu moy bande de ñaay donc lolu xur la te euh, xur boobu dañ fa dëkk donc loolu mooy premier facteur maanaam tey euh, nit ñi dañoo dëkk ci xur dëkk ci place ndox te foon dëkk donc premier facteur deuxième facteur mooy euh, ce qu'on appelle la gestion urbaine te bu ma waxee gestion urbaine dama ci boole planification dama ci boole gestion quotidienne de de la ville par les municipales par tous les acteurs maanaam dañu am faiblesse ci la gestion urbaine faiblesse bu djegi dayo tay les plans directeurs da ngay dem ci yenn commune plan directeur yi ñu def fay plan directeur obsolète wala plan directeur bi baxna mais defuñ ko mettre en œuvre tey ñu fi wax ne fi c'est une zone non aedificandi manam fi kenn war fi tabax ñi mm-hmm. ñew tabax fa la responsabilité est partagée y a à la fois la responsabilité de l'État mu yoon ndox ñu ñew tabax responsabilité état responsabilité collectivité territoriale responsabilité aussi des populations donc les, responsabilités partagées benen les municipalités ne jouent pas correctement leur rôle en matière de gestion urbaine dañu am défaillance dañu am carence ci oto bu tey bo xolé xoolee parcelle fi da ngay ne dañ ko tout est marché mhm. et là c'est pas normal je pense que lolu c'est des aspects qui ont da causer des créer des conditions et des cocktails de risque d'inondation Une euh, bi bi ci topp euh, manque d'infrastructure de canalisation d'assainissement tey boy euh, booy compter zones am système d'assainissement daf koy bariwul wala calibrage bi du doy ay canaux yu ndaw lay doon attanul capacité ndox mi taw bi donc loolu bu da fay indi une inondation ak comportement askan ak comportement ak comportement di si mbalit tay da ngay def ay canal ay canaux yu nga xamné da ngay gis ñuy balé di ci tour municipalité aussi tout le temps nous curé curer à l'approche de l'hivernage les canaux le problème manam les infrastructures doyul et bi ci mujj changement climatique man beaucoup comme je travaille dans le changement climatique depuis plusieurs années maintenant depuis une dizaine d'années donc euh, dañuy dañuy nous, li ñuy tubaab on accuse à tort le changement climatique ne causé causer inondation il y a des études qui ont montré que le problème de du problème inondation à Dakar du problème changement climatique mais facteurs yi nga xamné mom la la wax y a un cocktail de vulnérabilité moindre goutte de pluie ndox ndox mi ndox mi fess donc lolu mauvaise politique euh, urbaine gestion urbaine la euh, les conditions physiques ñuy jël di dëkk ci xour lolu nak pour une solution je pense que du question ay affaire de. Euh, je pense que légui même Catherine, day. une situation kafrine dafa am situation Kaffrine ci cuvette la nek ci xour la nek en réalité bo nekkee ci xour il infrastructure de canalisation nit ni de dëkk Il xur forcément da ngay am inondation man souvent les inondations euh, à Kaffrine dans ce contexte relève de la normalité en réalité man loolu lay wax Kaffrine moo bu inondation du bon parce que je sais que forcément day am inondation parce que si xur nga nekk amoo benn système de canalisation une goutte de pluie dafay dafay dafay poser problème dégg que les solutions euh, doonul ay ay ay ay ay plan Orsec ay plan Orsec c'est vraiment ñi nga xamné ñom ñoy wax ñi euh, seen xam-xam ñom màcc ci ci adaptation bu ñuy analyser lool dañ ñay wax né pour nga am résilience pour nga am résilience il faut que nga am capacité d'anticipation nga am aussi capacité d'absorption am capacité d'adaptation malheureusement. ils avaient mis le plan décennal. Voilà, le plan décennal sur 700 750, voilà, 56 milliards, de Mais en réalité, j'ai euh, étudié un plan décennal j'ai eu un mais plan décennal Mbaye en réalité plan décennal plan décennal mais defuñu ci dara liñ ci waroon def defuñu ko je pense que yooyu loolu moo war a jeex ci réew mi plan boo ko defaree da nga koy continuer il faut nag yooyu ñu ci def audit xool situer responsabilité yi 700 milliards mënoo ko wax je pense que loolu dana bokk ci li nga xam ne danañ ci bàyyi xel xool naka la ñuy gëstoo plan yooyu nga xam ne c'est des milliards ñu wax ñu ko ñu dem ba ci biir bàyyi ko wala suba ñu indiwaat loolu ay jafe-jafe la ñun lu ñuy am nañ ci am nañ lu ñu naan wax naan euh, bokk na ci suñu programme mooy euh, ce qu'on appelle un programme de résilience territoriale au climat programme boobu euh, dafay jël en compte inondation dafay jël les questions érosion côtière parce que gis ngeen érosion côtière dafa donner le, lu jafe question sécheresse Il faut dafay doon lu nga xam ne euh, dañ koy prendre en compte parce que inondation donul donul lo nga xamné ben patch pàcc ko parce que inondation dafa laaj lu bari dafa laaj acteurs yu bari ñu war ci wax euh, municipalité yi ci lañ bokk population yi ci lañ bokk état bi ci la bokk tey état mënul am un plan de lutter contre les inondations nous bàyyi des maires ñu joxe des institutions de construire fu nga par exemple le plan national d'aménagement, wala le le le le PDU plan d'urbanisme dafa faut que nous kenn waru fa waru fa moi, loolu euh, moo waral nous, ñun suñu gis-gis approche une approche globale bu nga xam prendre en compte les choses le problème euh, dans sa globalité mais à long terme Donc lu nga xam ne da ngay ñu ne inondation nga commencé këtt na jonne na plan Orsec loolu c'est ce qu'on appelle la gestion des catastrophes euh, les capacités d'absorption am bir risque dang koy dang koy dang koy katandu d'abord katandu ko fexé bu ñëwé mu woyef nga gérer ko mais aussi nga fexé ba ëlëk bu ñëwé itam

jeexal parce que le problème est structurel les inondations ku la fi dig ku la ne le ren du ma inondation dem da lay nax en réalité c'est pas possible parce que on a des problèmes structurels yu nga xam problème développé woon euh, voilà parce qu'on a sur si seen parce qu'on a raté on a raté parce qu'en réalité on a raté songu leen point boobu non song so on a on va parce que en réalité euh, inondation boo koy problème problème les inondations à Dakar mënoo ko def sans nga def des études foog nga def des études bien vrai que y étude sur le plan en tout cas sur cartographie voilà y a beaucoup de directions yu nga des études Nous, nak ñun ci parce que on va développer un programme programme de feuille jël des informations des informations réelles sur le terrain mëna aussi évaluer parce que nous lo sans pourtant évaluer quelles sont les lacunes du plan décennal tey ji dañu wara a sukkandiku ci jafé jafé yi nga xamné plan de scène amna na problème yi pour mëna ñun cadrer calibrer ñun solution bi nga xamné mom moom mom ñuy proposer mais ce qui est sûr euh il y a des solutions yo xamné peut-être li amone Dakar dañ koy dañ koy fexé ba dotul amaat def un programme d'aménagement du territoire moy pôle yu ñu proposé fexé ba nga xamné Dakar dana am équipement nit ñi dañ compte mais danañ fexé ba nga xamné nit ñi aussi dañ leen di décourager ñuy concentré au Dakar ñuy mëna dess Thiès ñuy mëna dess des di mëna dess des mhm. voilà lolu nak jóg ngeen si bu baax parce que mom mo waron doon suñu dernière question comme mhm. dugg nga ci ñu gën ci xous rek mhm. Dakar mu ngi étouffé ñepp nga ngi dajaloo fii ñëpp a ngi tàncaloo fii ban politique ngeen am si équité territoriale bi nga xamné mom Macky Sall est-ce que continuer wala rupture je pense qu'on va on va renforcer on va affirmer la politique euh, d'aménagement du territoire L'aménagement du territoire doit souffrir pendant plusieurs années je pense que aspect bi ci le euh, am solo euh, des orientations claires dañuy poser des des des des des objectifs précis mais malheureusement euh, ci mise en œuvre la ñuy des lacunes dans toutes les politiques parce que ñu ngi comme la ko élaboré nañ plan national d'aménagement du territoire validé depuis 2020 mais il euh, y a toujours des lacunes malgré les lois d'orientation def pour vraiment euh, rendre voilà exécutoire le plan national d'aménagement du territoire mais ñun déjà il faut que ñu l'aménagement du territoire waratul nekk benn euh, agence bu nga xam ben ministère nek dafa wara nek au-dessus de de de en tout cas de tous les ministères soit mu nek mbir primature wala mu nek présidence de la république nga xamné tay da fay mën am ay sañ-sañ yoo nga xamné lepp lu way di def euh, daf lay orienté dëng ci ciy sukkandiku mais bu fekkee dafa nekk ci benn ministère yow nga ëmb lépp benn ministère ëmb la fay poser problème pour nga mën a joxe des ordres je pense que situation eh, en termes de conseil pour que l'aménagement du territoire ñu jox ko gëddëm fexé ba nga euh, mesures yi financement pour mëna dans les pôles huit pôles yi ñuy souligner fu nek ñu def des infrastructures ñu def aussi des équipements des infrastructures en termes de route de connectivité euh, en termes de centre d'éducation parce que tay jii def nañ ay ay centres universitaires yo xamné Euh, par exemple Matam am na ay institut ISEP lañ koy wax waaw nga xam ne tey jii euh, ñu ci bëri xëj na dëkkuñu maatam mais euh, ñu ci bari feneen la ñu jógee ñëw fa maatam ñu jóge maanaam dañuy def de telle sorte que dans chaque pôle ñu créé fa des universités universités dafay méngoog ak kompoom ak ressources yi fa am fexe ma nga xam dana mën a polariser ñi nga xam ne ñoo nekk foofu au delà de ñeneen ñoo xam ne te dana ñëwee feneen maanaam capacité yooyu ñukoy renforcer yaatal ko menam ak njang bi parce que dañu bok ci sun programme walum njang mi njang mi mu mengo vraiment formation bi nga xamne mom la université mom la mom la euh, employé soxla lolu aussi bok na ci li nga xamne ay jafé jafé la nga def formation bo xamne euh, ñi lay am employeur yi soxla wuñu ko lolu jafé jafé lu ci université jafé jafé lu ci centre de formation mais dinañ fexé ba nga xamné lolu bind nañ ko sur programme mais euh, des formations yoo xam ne dafay méngoo ak ñun suñu orientation publique dafay mingo ak aussi li nga xam ne moom la employeurs yi soxla ci industrie yi ci élevage ci fànn bu nekk donc loolu doon na lu nga xam ne ñu ngi doon na lu lu lu am solo ci suñu programme. <laughs> Euh, dernière question rek euh, comme yaa ngi wax si waxum njàng waxu formation. si mm-hmm. seen programme am na tamit li nga xamante ni moo di promotion bilinguisme bi. Mm-hmm. c'est-à-dire que am xale yi di commencer di jàng anglais ci dès le bas âge de l'école primaire mhm. ba au même moment on a un manque quand même criard d'enseignants rawatina si professeur d'anglais aussi dugal ngène ci mbir mi tamit enseignement religieux dans les écoles mm-hmm. Mm-hmm. mais est-ce que lolu tamit mënul am risque te liñu leen doon euh, di nek ay salafiste est-ce que du loolu fi bëgg a indi aussi mu euh, du nar indi problème quoi enseignement religieux quand même mësuñu ko dégg su suñu école du moment que l'école est laïque en réalité euh, la laïcité c'est un leurre en réalité la laïcité c'est un leurre. mais si régime euh, mais waaw wax mais tay bu ne la xam nga la laïcité ça veut pas dire l'absence de religion. <laughs> non non ça veut pas dire laïcité ne ne veut pas dire absence de religion loolu la loolu tax ma wax c'est un leurre ñun ci ciy tay ji mënu no nek ci société bu nga xamné euh nit ñi ay ndongo daara la ñi ay lii lañ nga nga écarter leen système ñun lu ñuy proposer moy euh, manam les dara par exemple tu vas à Touba am ay dara ño xamné ñi ils sont strictement wa mais fi may waxé moy fi may waxé moy euh, état xam nga lolu système bi waxu ci dara état bi jëlu leen en charge ñun lu ñuy wax mooy lu ñu proposé mooy dañu am système dañ koy renforcer dañ mm. koy renforcer manam ñun luñuy wax moy le système dara doit être un système bo xamné da fay intégrer le système national avec des critères avec des conditions de telle sorte que dañ accompagnés, di accompagner am na ci bokk programmes, programme institution des xam des maîtres coraniques accompagner les de telle sorte que le maître coranique mon statut doit nga le daf permettre statut bi nga enseignant bi buy français bi daf koy am dafa don nga euh, c'est une façon de en tout cas une justice une intégration parce que warul don qui nek fi qui nek fi mais da nga un système qui nga xamné ak des particuliers ku nek gis sa bop nga encadrer lepp tay nous nu ñu ba nga xamné al mi n'jangum bi wala catholique parce que bu le système fay don catholique yépp ku nek fexé ba nga xamné ne njàng mi dafay doon njàng bu nga xamné kenn ku nek ak sa orientation ñu jappalé système bi système boo xam état du Sénégal mo koy contrôler mo koy organiser du bayyi xalé yi ak ku nek di gorlu sa côté mu am ay impact mu am ay conséquences parce que gis ngeen gis nañ problème euh, daara yi xale yi yëlwaan gis nañ ko ci mbedd bi depuis plusieurs années chaque régime bu ñëw jéem ci indi yooyu solution loolu nag pour nga am solution boobu donc dafay laaj organisation ñu xam ne ñi nga xam ne ñoo war a jàngale daara dañ leen di encadrer ñoom formation ñu teg des critères accompagne ñu am environnement nga xam ne dana permettre ñu nekk dans des conditions yoo xam ne euh, ku bëgg a jàng da ngay jàng correctement am ak ak yelleef bi nga xam ne ki nga xam ne mooy jàng français daf koy am en ñun loolu la ñuy wax fexe ba nga xam ne kuy jàng daara. ak kiy jàng français du affaire jàng daara wala jàng français mais da ngeen ne enseignement religieux. waa xam nga xam nga xam nga. enseignement xam nga xam nga enseignement religieux ku nekk. Euh, kuy jàng alxuraan ci wàllu diine xam nga kuy jàng xam nga kuy jàng xam nga kuy jàng. jàngu ku nekk bépp sénégalais bépp sénégalais. Euh, ñun Sénégal réewum diine la te bu ma waxee diine diine catholique diine euh, voilà islaam moo tax ñuy wax réewum diine la. réewum diine nag euh, kii bu ne maanaam sénégalais bu ne dafa am àq ak yelleef nit ki bu waxee ne moom dafay jàng diine dafay parce que diine euh, mooy doomu aadama diine boo ko génnee ci doomu aadama doomu aadama nekk te bu fekkee da ngay tabax ay valeur il faudrait valeur yooyu nga fexe mën koo encadre mën ko jàpp téye ko ak li mu yellool parce que dootuñ nekk ci situation bu nga xam ne dafay doon état bi day ñëw maye mais dañ leen war a intégrer ci système national ñu am àq ak yelef ñu gàddu ko ku war a jàng diine am nga ci droit état bi daf la yor yow man bu ma ñëwee ne français lay jàng lu tax état di ma jox moyen ma jàng ma ne man dama bëgg a jàng diine état bi na noo bokk non système boobu moo moo moo maanaam euh, système boobu moo war a jeex de telle sorte que ñoo xam ne ñun dañu yor une société boo xam ne une société dañu bëgg une société inclusive képp ku nga xam ne lii nga bëgg a jàng nga jàng ko état bi ak yelleef bi nga war a am nga am ko dans des conditions yu nga xam ne dafay permettre yow que sa soit daara que sa soit beneen catholique que ça soit aussi français yow nga sentir ne man sama état bàyyiwuma foofu la ñuy waxee doonul lu nga xam ne dañuy ñëw walla dugg ci wàllum diine mais dañuy créer les conditions pour que nit ñi am xam-xam xam-xam moo yore réew xam-xam boobu nag mu ngi ci diine bi mu ngi ci science bi mu ngi ci vingt voilà loolu yëpp dafa doon loo xam ne dañ ciy bàyyi xel cette inclusion cette dimension inclusion dafa doon loo xam ne bokk na ci en tout cas euh, un principe phare ci programme bi nga xam ne moom la ñuy mettre en œuvre inclusion boobu nag dafay laaj daara beeg catholique beeg ñoom ñëpp ñu mettre leen dans des conditions ñu am seen droit ak am seen ak ak seen yelef reconnaître nañ ñom respecté nañ sen droit mais aussi jox nañ leen sen cër jox nañ leen aussi li ñi yello ci li nga xamné mom moy moy politique parce que ñun nak aussi ci société lañu nek nous sommes dans un soci dans une société sénégalaise avec des valeurs avec des principes avec une histoire on ne peut pas se développer bàyyi suñu valeur suñu histoire à côté je pense que bok na ci ñun suñu suñu suñu suñu refondation moy ñun ñu jox doxee ci suñu valeur buñu kenn nax ñew ñu laïcité la laïcité ne veut pas dire absence de religion donc loolu bëgg nañ ñu koy fàttali nit ñi créer une frilosité une ne daara rek wala nga non nit la d'abord nit bo ci dîner diine doonatul nit je pense que c'est des aspects comme ça euh, bu nga xamné bayé nañ ko xel l'humanisation de nos politiques publiques et c'est une dimension extrêmement forte. Mama Tall Ndao maa lay de di la sante maa ngi lay de di la sant Adé di rafetlu invitation bi nga ñuy invité euh, je pense que ça a été une bonne émission et on est fier en tout cas de, de, de, pouvoir venir échanger avec vous ñu ngi leen di gërëm di gërëm seen auditeurs yi seen téléspectateurs nga vous êtes fier de venir échanger avec nous xanaa légui nak di ngén ñu ko yombalal gay top invité depuis un an laa la wax ni mënuma fexe ba c'est-à-dire que da ngeen nekk parti bo xamné ne gëna a décrocher invité euh. xanaa légui nak di ngén flexible <laughs> touti nak. non en réalité euh. Euh, yow waxon amna na la digoon wax naa c'est que du yow kessé. digoon na la c'est que problème du yow kessé. <laughs> nee naa la su ma la limalee ñi may woo si Pastef c'est-à-dire que chaque jour ils te disent que oui nos dina dina rencontre on a une cellule qui s'occupe de ça parce que <laughs> ils te reviennent jamais mais les les les veux affirmer ah ah. déjà le privilège man je premier invité

émission vraiment am naa mbégte lool yéen it mbokk yeeg xarit yi ñong leen di gërëm di leen sant di leen jox dig daje rek ci benen numéro on en parle avec may rappeler rek suma invité tay ji Momar Tall Ndaw la won bok ci mouvement national des cadres euh, patriotes nek tamit spécialiste en développement territorial ak li nga xamanteni modi gouvernance climatique jërë ngeen jëf ba beneen